لأن رمضان يجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ji seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Imran TV seen jotaay mu tuddee hadisul yawm ngeen koy am bis bu jot waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala di leen ko defal si tabaarakallaahu sunu bind bii weesu noo ngi nekkoon ci hadisu woor ashura muy fukkeelu fan ci tamxarit bi sunu hadiisu yow mi incha mooy gunge weeru koor bi te mooy woor juróom benni fan ci korite bi yàlla ñu fekk fekk leen fi te buy dem bàyyi nu fi buy del saat fekkaat nu fi euh, koor gi dañ koy gunge dañ koy gunge ci juróom benni fan waaw juróom benni fan juróom fan yooyu bu ñu waree bu la neexee taqale ko bu la neexee tàqale ko nii la addis bi tëdd an abi ayub al ansaari radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man saama ramadana summa atbaahu sittan min shawal kaana ka siyaami dëhër rawahu muslim alayhi salaatu salaam nee na ci hadis bu ñu jëlee ci abu ayub al ansari te mooy góor ga ko dalaloon ba mu ñëwee al madina ca gàddaayam nga borom liggéey bu rëy boobu te te te dafa la ca turki mone ne yonent ba alayhi salaam moo ne ku woor ramadaan ba mu jeex nga gunge ko ak juróom benni fan mel nga ni ku at mi yëpp hmm? waaw ku woor Ramadan ba mu jeex nga gunge ko juróom-benni fan mel nga ni ku woor at mi yépp boo wooree Ramadan fanweeri fan fan bu nekk mu nekk fukk fanweeri fan fan bu nekk nekk fukk jël leen seen machine nu ànd maag yéen ñu calcul ñu calculer loolu alayhi salaatu wasalaam wax fanweeri fan fan bu nekk war nekk fukki fan am nga trois cent jours bind leen ko am ngeen juróom benni téeméeri fan trois cent jours euh, nee na nga daal di woor juróom benni fan gunge ko juróom benni fan yi fan bu nekk fukki fan am nga soixante jours kon am nga trois cent soixante jours trois cent soixante jours am nga ko ci at mi bi nga bi nga weer wooree fanweeri fan gunge weer bi juróom-benni fan te at maa ngi nekk ci doxinu weeru tubaab 365 waaye bu dee ci weeru wolof manqué na loolu ala kulli xaal ab calcul bu may joxe man ngeen am sax peut yoon woo xam ne bii mooy gën a gàtt yoon wi moo ko jaaree pour doon jéem a indi leeral ci loolu an abi ayub al ansari radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man saama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kaana ka siyaami dëhër yonente bi alayhi salaatu salaam nee na ci hadis bu ñu jëlee ci abu ayub al ansari mu ne képp ku woor ramadan ba mu jeex nga gunge ko ak juróom benn fan mel nga ne ku woor at mi yëpp am nga tuyaabay ku woor at mi yëpp kon nag bu leen fàtte gunge koor gi ci juróom benn fan yooyu noonu kum neex tàqale ko kum neex tàqale ko jigéen jum neex woor ko ma maanaam fay wooraale ko waaye kum neex tamit nga woor ko ba noppi fay sa bori koor kon mbir mu mu am solo mooy gunge koor gi ci juróom benni fan yal nañu ko man ñun ñëpp te attan ko eh, te itam borom bi tabaaraka taala nangul nu ko nangul nu koor gi weesu nangul nu li nga xam ne moom lañ ci teg mooy juróom-benn fan yi nga xam ne mooy tege ci koor gi comme neex taqale comme neex taqale waaye na nekk ci biir korité bi rek yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.